day baat yomb wax ci aw làmmiñ te boo liggéey buñ ko tegee ca place ba day diis lool place ba ñuy peesee jëf yii buñ ko ci tegee day diis lool ba noppi nag neex wax ci làmmiñ boole ci kon moom it na ko baril سانك وخلي دو سي كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا Hace clic ak si cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën ko njëkk am bul fàttee cliquer si abonné ak si cloche ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën koo njëkk am mu ne lu ñu tuddee albaqiyaatu saalihaatu yonente bi am na ko ci addis tudde leen tur yu lool yi wane seen njariñ mu ne albaqiyaatu saalihaat mooy subhaanallaahi ak alhamdulillaahi ak laa ilaha illallahu ak allahu akbar ak laa xawla wala quwata illa billah am nañu ci boole alxaliyul azim am ñu ko ci dul boole kon bon bëggee bool tudd nga ne subhaanallaahi walhamdulillahi ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من لي تودي الباقيات الصالحات بكو أديس بأندي دا وخني نيوم day مقدمات لنو مجنبات mu jannibaat lañu nga dégg nag mu firil la baat yooyu ki tax yonent bi ne muqaddimaat dama di yooyu jiitale mooy boo leen di sikkar bu ëllëgee dañ lay jiital ñoom baat yooyu yóbbu la àjjana kon muqaddimaat li ko waral mooy kuy tudd baat yi di ko sikkar ngir yàlla di ko saxal di ko baril bu bis pencee baat yi ñoo lay jiital jëme àjjana li ko tax a tudd mu jànni baat nee mooy baat yi ku leen di sikkar bu ëllëgee baat yi ñoo lay sori lal sawara ba sawara du la jege du la laal li ko tax a tudd mu xaqi baat ba tey mooy wattu gi la baat yi di wattu di la sàmm mu xaqi baat way wattoo mooy baat yi day wattu jëmm da koy sikkar di ko aar mu ne kon nag na nga saxoo baat yi subhanallah ak alhamdulillah ak la ilaha illallah allahu akbar ak la hawla wala quwwata joju boko saxo day da nga don ko yalla fonk ba nit ñu bax ñi sax ñu mag ñi dina siyaré kon ci gatal al baqiyatu salihat dalay ar dox sa digënté lepp lu don dox sa digënté ak sawara ba nak yobuna aljana loolu ba tey benn hadis la boo xam ne ko andi léegi ci masar wi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim lay wax lay wax subhanallah teg ci wa bihamdihi waxaat nag beneen subhanallah teg ci baatu alazim muy subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim mu ne day day baat yomb wax ci aw làmmiñ te boo liggéey buñ ko tegee ca place ba day diis lool place ba ñuy ko ca tegee day diis ba noppi nag neex wax ci làmmiñ boole ci kon moom it maa ko baril dama ko wax léegi ci addis bi mu ne albaaqiyaatu saalihaat ci la yonent bi waxoon saxaaba yi ni leen am leen ma jox leen lu leen di aar ñu ne ko lu nuy aaral noon bi bëgg dikk la mu ne déedéet lu leen di aar dox seen digganteeg sawara laa jublu ñu ne ko loolu mu doon mu ne mooy baat yi subhanallah jooju noonu mu tegaloo ndax mu ne baat yi ku koy wax bis pencee dañu lay jiital ajana sori lan la sawara sàmm la aar la mu ne yemu bund ca suuf muy talaasamoo sab xalatan bi xam dala ba mat yaar mu ne dama cee junj la addis ba wax ne kalimataan xafifataan mu wéy te loolu mooy ñaari baat ñii subhanallah wa bihamdi da nga koy jàpp benn baat subhanallah alxasim nga jàppe ko baatu ñaareel ne moom sax boo dee wàññi baat yi ci li nga xam ne baat moom da nekk ñaari baat waaye rek subhanallah daa ñëw ñaari yoon bu njëkk bi ànd ak wa bi xam di bu mujj bi ànd ak alxazamin ñu far koo tuddee rek ñaari baat yonent bi dañoo woon ñaari baat yoo xam ne daa yomb wax ci làmmiñ mel ne daa woyof ci làmmiñ bu leen dee tudd waaye dañu gis gan ci balaas ba bi ñuy peese jëfi jaam ñi te it ñaari baat la ñu yàlla sopp lool mu ne kon dee leen ko taxoo tax mu àndi woon talaasamoo حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان